yéen a ngi teewlu info 221. da ngeen jëf mbokk yi déglu info 221 ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen dikkaat nag ci yeneen xibaar jëmale ko rek ci manifestation bi amoon fale ca Touba ginnaaw bi nga xamante ne nag ñi di coalition Yewwi Askan Wi bokk na ci Ousmane Ousmane Sonko ak i ñoom nag ñu ngi ko doon nar amal foofee ca Diourbel fale ca Mbacké doon na loo xamante ne nag préfet bi joxu leen ko woon dogal ngir ñu amal ko nañ rek ba daal di amal boobee mitin mu taxoon nag ñu bëri euh, ñu jàppoon leen teg leen loxo ñenn ñi nag am ay gaañu gaañu waaye tamit mu bari woon ay bërëb yoo xamante ne amoon na nag ab ay yàqu-yàqu tax na nag magistrat bi nga xamante ne moo daal di jiite ñu gën ko xam le magistrat d'instruction moom mi nga xamante ne nag daal na joxe ab liberté provisoire buñ sukkandikoo ci xibaar yu dikkee ci ñi di waa Seneweb mi nga xamante ne jege na lool fi ngi doon àttee nee na bépp élève yi nga xamante ne rek tegoo nañ leen loxo arrêté arrêté leen ci àjjuma ji nga xamoon ne amaloon nañ meeting boobee ca Touba ca Mbàkke ñoom ñëpp nag bàyyi nañ leen ngir ñu ñibbi seen kër euh, ginnaaw mitin bi nga xamante ne Ousmane Sonko daan na ko fa amal bu ñu sukkandikoo ba tey nag ci yoon ak clémence bi nga xam ne justice nag ak collectifu gouvernement bi nga xamante ne euh, ñoo jiite wàllu njàngumeek meeg njàngal mi foofee ca Touba Mbàkke ak département bu Mbàkke lañu ñaan rek mooy ñu dal di bàyyi ndongo yooyee ngir ñu mën a dellu siwaat di euh, reprendre seeni cours semaine bi nga xamante ne moom la ñu weesu réunion bi nga xamante ne nag amal nañ ko dinañ amal ab réunion d'urgence boo xamante ne rek euh, ci àllarba bi niki tey lañ koy amal bu ñetti waxtu jotee ci ngoon fale ca structure bu nekk euh, fale nag ca Mbàkke ngir daal di yëkkati grève bi nga xamante ne nag euh, jëmale woon nañ ko ci wàllum njàng bi bu ñu sukkandikoo nag ci ñi nga xam ne ñoo yor njàng meek njàngal mi fale ca Mbàkke mbokk yi li moo jotoon ci ay xibaar bokkoon ci meeting bi nga xamante ne daal jotu sax am ca Mbàkke njeexti ajuma ji ñu weesu te Ousmane Sonko ak ñoom naroon ko faa ay tamit ñu bëri ci ay ndongo rawatina ay manifestant manifestant yoo xamante ne yoon da leen teg loxo ñoom ndongo yooyu nag ñu leen di xaman ne bàyyi nañ leen ñu bi seen kër ginnaaw bi nga xamante ne nag ñi yore wàllum njàng ma foofu daanañ amal ab ñaan rek ki nga xam ne moo yor wàllum yoon ngir rek ndongo yooyu delluwaat ci école yi daal di tàmbaliwaat seen i jàng bu ñu weesoo loolu nag ñoom ndongo yooyee rawatina nag ñi ëmb bu wàllum école gi dinañu amal bu ñetti waxtoo jamono ji sax ñu ngi ko doon amal ngir rek euh, waxtaanee lu jëmal ci grève yi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal ngir rek ñu bàyyi seen jàngeen jëf mbokk yi si ànd beeg déglu bi dinañ fi dellu si waat ngir jukki leen yeneen xibaar